est-ce que xam ngeen luy crypto-monnaie salaam gaay ma la DMK investisseur bu ndaw businessman mooy loolu noonu te dama ñëw pour def leen benn formation bu ndaw sur les crypto damay gis nit yi naan crypto dafa compliqué dafa metti ak yooyu noonu wala genre crypto wóorul dama leen di wax benn affaire fi ñu toll nii en ce moment la mooy la monnaie du futur ma jox leen benn exemple rek ins bi nii pour vous dire la vérité entre euh, Russie ak Ukraine xam nga en ce moment banque française yi dañoo bloqué seen kii nii dañoo bloqué euh, accès ak ak banque euh, Russie bi ça veut dire que par exemple instant nii su amoon benn entreprise bu nekk Russie bu doon def business en ligne te nga xamante ne foofu nga doon retirer xaalis par banque wala yokk xaalis par banque instant yi mënatul nekk tu vois am na benn business bi nga xamante ne nii après dinañ ci ñëw dinañ waxaat business bi nga xamante ne chaque mois da tamit mooy loolu business boobu noonu pour man cee dugal xaalis dafa am trois types de paiement xam nga premier bi paiement par carte mais paiement par carte est dañ ko bloqué ndax entreprise boobu noonu mi ngi biir Russie te banque française yi dañoo bloqué accès euh, ak banque Russie xaw ma ndax xaw ma nag ndax banque sénégalaise nañ ko bloqué ci yëpp mu ko xam ndax bugguma ñëw di essayer transaction far nga perte fa sa xaalis loolu noonu deuxième kii bi par bitcoins troisième bi par euh, Ethereum mm, non par Tether ERC20 boobu noonu instant nii moom la gars yi di gën a utiliser ndax boobu instance bi moom la frais yi gën a wàcc. pour rek war leen instance bii ni importance su crypto monnaie bu leen ne instance bi nii ñoom maa ngi Sénégal maa ngi Dakar non crypto monnaie du ma ci mën a am day compliqué dafay métteeg majeur gu ma ak loolu noonu yëpp ay prétexte la. loolu noonu yëpp ay prétexte la fi nga toog nii mën ngay am say crypto monnaie di am ay revenu passif di gagner sa let's go lan mooy cryptomonnaie cryptomonnaie mën nañ ko assimiler ak monnaie normal mais loolu noonu monnaie en ligne la monnaie virtuelle la comme par exemple ni ngay jëndee xaalis cent francs deux cent francs trois cent francs dem boutique bi jënd et tout ça et cetera cryptomonnaie c'est la même chose mais loolu noonu ce sont des monnaies en ligne monnaie yi nga xamante ne mënoo ko mun mënoo ko téye sa loxo mais ci peux les utiliser mën nga def ay transactions en uh, ligne di jënd ak jaay te teewul mën nga def ay transaction maanaam di ko retirer ko sa compte PayPal wala retirer ko sa kon bancaire dem banque directement retirer xaalis foofu noonu tu vois un peu l'idée du genre tes comptes euh, tes crypto-monnaies euh, les crypto-monnaies ce sont des ce sont nan laa koy mën a waxee sax crypto-monnaie c'est décentralisé banque c'est centralisé xam nga banque balaa nga def benn prêt ak yooyu noonu genre pour mën a récupérer xaalis ak yooyu noonu foog ñoom ñu accordé la loolu noonu soo par exemple soo demee nii pour mën a retirer xaalis ñu ne la noonu doo retirer fausse doo retirer mais wàllum crypto monnaie loolu noonu c'est décentralisé du benn nit kese moo koy gérer ay téeméeri téeméeri kii ñoo fa nekk lien dama fàtte ñu ngi koy waxee genre ay robot ay ne ñi nga xam te ñooy gérer transaction bi si biir benn kii nii réseau bi ñu woowee blockchain blockchain boobu noonu pour vous dire la vérité amul mbindeef bu nekk si kaw suuf bu ko mën a craquer xanaa nga doon ñoom Elon xaw ma nekk si biir euh, waa Anonymous te waa Anonymous sax instant yi gisuma leen fu ñu koy jéem a craquer pour vous la vérité blockchain ins bii nii nii pour reprendre ko day compliqué moo tax ins bii nii gars yi dañoo remarqué dañoo kii nii hmm, dañoo kii nii dañoo jël ñaari dañoo recensé ñaari blockchain blockchain teg ko mais blockchain bu gars yi di gën a utiliser mooy ñu bëri suñu créer cryptomonnaie ins bii nii blockchain Ethereum la ñuy jël pour pour mën commencer seen projet vous voyez un du genre léegi crypto-monnaie yi dafa am ay façon dafa am ay crypto yi nga ma xamante ne c'est très volatile maanaam euh, kii bi valeur am bi day yéeg di wàcc comme par exemple bitcoin ethereum dashcoin ñoom euh, ñoom euh, Terra Luna ñoom Sandbox ak yooyu noonu yëpp c'est très volatile am yi nga xamante nag yooyu noonu moom la ñu woowee ay stable coin comme par exemple USDC USDT ay DAI stable coin mooy ñoom USDT ak yooyu noonu mais monnaie yi nga xamante ne ko indexé au dollar mais monnaie yi nga xamante ne du varier soo dugalee 100 USDT 100 USDT nga fay fekkaat wala xaw wala des fois mu wàcc dem ba 99 virgule 99 virgule 99 wala mu yéeg dem ba 100 virgule 1 genre yooyu noonu mais du mës a du mës a dépassé euh, grade boobu moom tu vois un instant yii nii. projet yu ñoo def ni yëpp investissement yu ñoo def ni yëpp c' est basé sur les crypto monnaies moo tax man ne leen instant ni amul base yi crypto monnaie da man ne dama ñëw fii pour vidéo bi pour yombal leen ko pour nga xamante ne affaire yi dafay gën a yomb expliqué naa leen blockchain blockchain réseau bi nga xamante ne moom mooy gérer crypto monnaie la réseau bi nga xamante ne quasiment impossible à craquer bu ñu ko jotee def ba léegi imaginez vous ni si ay Euh, par exemple mu ñëw investir si bitcoin non bitcoin wóorul fayatul bitcoin 2014 su ma juumul bi muy soog a ñëw 4000 dollars 4000 moo xool am na période bi nga xamante ne 4000 dollars la doon jaar lan la la euh, la valeur am nekkoon sur le marché ins bi yi mu ngi ci plus de ay 30 000 dollars te gars yi def nañ prévision ne leen d'ici 2031 dina àgg si 100 millions de dollars. daal li may wàññi nag dama juum. de 100 millions de dollars, mais 100 000 dollars là. <laughs> del mi wàññi waaya ah. soo play te instant soo teelee jël position après ay revenu passif kese la da nga fay bàyyi mu fructifier lu ñu woowee investissement à long terme bokkul investissement à moyen terme bokkul ak investissement à court terme voyez un peu le délai du léegi loolu noonu expliqué naa côté boobu noonu expliqué naa stable coin yi expliqué naa yooyu mais jarul guddal wax nañ ñëw directement avec la pratique pour mën a utiliser euh, crypto monnaie pour mën a utiliser ay crypto monnaie il faut nga mën a jënd ay crypto monnaie déjà pour nga mën a jënd ay crypto monnaie loolu moom foog nga am carte bancaire am na ñi nga xamante ne mënuñu ñu utiliser carte bancaire mën nañ dem si site bi ñuy woowee Easy Change. easy change man je connais am naa fa compte mu ngi nii easy change connexion mais j'ai jamais utilisé ndax man man maay ki nga xamante ne man gaawuma wóolu noonu laa <laughs> demee gaawuma wóolu nit waxatuma la plateforme bi nga xamante ne nga fay déposer sa xaalis après ñoom ñu envoyé la ko je sais pas je sais pas ndax ndax noonu la ndax man dégg na ci naan non foo déposer si saa si man loolu yëpp di ñu ci moo tax man easy change dama jël croix def ko mais bon mën ngeen utiliser li change yéen xool man benn moyen laa jël laa utiliser pour mën a jënd ay cryptomonnaie ak jaay yu kenn xamul lu yomb la lu yomb yow mi nga xamante ne peut-être ins bi ni étudiant nga surtout étudiant UVS yi UVS yi yéen laay gën a waxal instant wala étudiant boursier yi ñoom ñoo si gën a dara en ce moment am na business bi nga xamante ne sax après dinaa ko ñëw wax boobu noonu business boobu noonu mën nga commencer investir vingt mille francs non vingt euros 20 euros je non 20 dollars 20 dollars waaye 20 je pense que équivalent bi ins bi ni 12 000 13 000 14 000 genre yooyu la nga investir ko te déjà soo créé plateforme bi ñoom dañ lay may 100 euros non 100 dollars d'office 100 dollars yooyu noonu nga yokk ci 20 dollars muy 120 dollars mu génne la ay intérêt de 3 pour cent durant 10 jours léegi intérêt yooyu durant 10 jours ñu récupérer seen 100 euros yi non récupérer seen 100 dollars yi bàyyi fa. sa vingt dollars ak sa bénéfice muy ñëw loolu tamit naa si ñëwaat loolu tamit beneen business online la naa si ñëwaat pour nga pour ñi nga xamante ne dañoo bëgg am am cryptomonnaie am ay cryptomonnaie loolu noonu il faut ngeen am carte bancaire compte bancaire yooyu day compliqué ak yu kenn xamul lenn moo gën a yomb parce que man nekkuma fi naan damay dem créer ay dem UBA ay créer compte bancaire ay je sais pas quoi non non non fi gën a moo fi gën a yomb ñëw ma nag nekkul li placement de produit contacté wu ñoom pour moo wax leen ay affaire ak yooyu noonu mais Free moo gën a yomb par exemple soo leen demee ci Free seen agence Free soo recherché Free Sénégal soo demee seen accueil Free gis ngeen particulier amul jaralum leen di expliquer Free moom euh, voilà yéen moom yéen moo ko gën a xam mais leen moo ñu gën a intéressé si Free lenn moo ñu gën a intéressé fi euh, intéressé mooy seen kii bi seen carte bi maanaam seen euh, free master card bi gis ngeen free master card boobu noonu xam nga dugg recherche ko leen ko free master card voilà ñu ngi ni gis nga seen free master card bii nii nii nii nii déjà de un gis ngeen xale carte gab lañ fi benni ak sa carte free money retrait gab mën nga ko jël dem si gab bu la neex retiré yaay xool achat magasin tamit achat sur surtout lii achat internet bi nga xamante ne yow des fois da ngay toog nga soxla ne benn formation bi nga xamante ne UDM bi lañ koy jaay wala benn je sais pas benn affaire bi nga xamante ne je sais pas moi biir Amazon euh, voilà par carte bancaire lañ koy fayee ak tout ça et cetera mi nii combattir le Mastercard Ecobank yaa ngi comprendre léegi soo demee euh, agence Free par exemple nga dem agence Free bu nekk biir dakaar man foofu laa dem foofu noonu euh, ngay dem gars yi soo amul puce nga jënd puce soo jëndee puce ñu ne la 24 heures nga ñëwaat soo ñëwaatee 24 heures yooyu indi la contrat genre nga signé affaire yooyu noonu 2500 kese la nga fay si 2500. nga euh, approvisionner sa compte free money xaalis ndax compte free money bi de connecté wu directement ak carte Gambie bi voyez un peu le léegi soo defee loolu noonu ba pare jeex na carte Gambie bi lu am ci kii bi lu am ci compte my free bi free money bi moo am directement sa compte carte Gambie déjà loolu am nga carte euh, bancaire ba pare léegi lan moo ci topp deuxième point bi soo amee carte bancaire ba pare il faut nga utiliser benn exchange exchange mooy benn plateforme bi nga xamante ne foofu nga mën a jënd jaay ay cryptomonnaies gars yi yi les deux deux meilleurs exchange mondiaux mooy ak bii di ak Coinbase Binance ak Coinbase moo les deux meilleurs exchange mondiaux ndax ngeen ko gisee nii nii nii du ay plateforme yi nga xamante ne dañu fi nekk même pas un mois deux mois trois mois taf entreprise bi couler gars yi waaye ak yooyu non entreprise bi yàgg na fi yàgg na fi ça fait des années recherche woon naa ko mais dama ko fàtte. vidéo bi nii je l'ai fait sur le volet mais mënoon naa ko recherche mais ne vous inquiétez même pas mën ngeen ñëw ci site yi nii mën ngeen à san ngeen gëm ko à san ndax man du ma nekk fii di wax naa leen ko au début gaaw ma woolu nit am na beneen bu ñuy woowee ku coin suma juumoo exchange voilà bii tamit bii tamit exchange la am na yenn crypto monnaie yi nga xamante ne mi ngi fii euh, mi nga xamante nekkul fii te mi ngi Bitcoin am na beneen bu ñu woowee tamit Bitpanda non pas CoinTracker mais Bit bii euh, tamit exchange la yi la gars di kii la gars di conseillé mais man benn laa di conseillé. du ma sax benn laa leen di conseil ñaar laa leen di conseil en ce moment mooy ñaar yi Binance ak Coinbase. Coinbase nag pour ñi nga xamante ne nekkuñu Sénégal ñu ngi si yi par exemple les autres qui sont dans les autres régions genre les trucs non pas dans les autres régions mais dans les autres pays Burkina Faso euh, je sais pas dans les autres pays vous pouvez utiliser Coinbase parce que voilà ça peut marcher là-bas mais gars pour ñu nekk Sénégal <laughs> coché leen ma ko nànk ndax Coin Base marché wul fii nii soo ko xasee ba créé doo mën a am possibilité dugal xaalis si biir xale ñu naan votre zone géographique patati patata di dul di dajale. <laughs> voyons un peu man néew ma ci yooyu Binance nag mooy moom déjà moom la ñu qualifié ne le numéro un des exchanges mondiaux moom mooy numéro un instant est placé sur le monde te le deux suñu localité bi nangu na ko. tu peux acheter de la crypto-monnaie en étant au Sénégal, en étant à Dakar, plus particulièrement chez toi, avec ton call. Voilà, ins bii nii après dinaa la woon sax ñu koy defee si téléphone patati patata jun tralala so mais gis ngeen da ngeen ni si site baa ngi pour mën a commencer da ngeen di dem si s'inscrire après lii lañ bienvenue sur Binance Avant de démarrer, veuillez saisir votre lieu de résidence ñoo ngi Sénégal confirmé c'est carré lii nii inscription classique la adresse email mot de mais lii fii la bagage si nekk bii soo bësee ID de parrainage ID de parrainage fii nii nga fay mooy ID bii 391 963 612 lu ma leen fen de man moom su suis quelqu'un de très très très transparent avec vous soo ko utiliser lien parrainage la mi ngi nii code bii nii soo leen ko utiliser man am pourcentage si li ngeen di am man yéen tamit di am pourcentage si li may am te man mii nga xamante ne man ma leen si gën a yàgg déjà ins bi am naa fa ay dollars yi consoles imaginez-vous imagine leen loolu noonu di ngeen di am ay pourcentage si li li ma jot a liir si li ma jot a liir si parrainage bi ndax am na parrainage yi nga xamante ne fii rek du am tous mais man parrainage boobu noonu je pense que changé naa ko mais bon so parrainage bi daal dans tous les cas dans tous les cas pour mën ma remercier rek genre yooyu noon wàññiw leen dara yokku leen dara kii bi ID bi de parrainage rek ngeen di bindee soo leen ko bindee da ngeen xam ne carrément li y a un gars qui vous a référé sur euh, Binance mën ngeen créer communauté bi nga xamante ne yéen yéen ngi entrainé wu pour euh, voilà pour pouvoir s'en sortir sur Binance yéen voilà je vais faire un truc ça pour ñi nga xamante ne bind nañ ID de parrainage bii nii dinaa créer groupe Telegram spécial bi nga xamante ne samay investissement yu nekk biir euh, Binance samay euh, euh, revenu passif yëpp dinaa leen wan nu mu fay demee nan laa koy utiliser nan def ba mën a générer ay xaalis et tout ça et consort donc ins bi ne franchement parler yéen a ne des soo leen bindee ID de parrainage bi fii nii ngeen bës ngeen bind seen mail seen mot de dinaa def tamit lien bi directement ci bio bi je pense que soo bësee lien bi directement ci bio bi ID de parrainage bi day bind automatiquement mais su bindoo rek mi ngi nii loolu ngeen di bind ngeen bind seen adresse mail seen mot de passe j'accepte ngeen bës créer su ma juumul après dinañ leen envoyé mail de confirmation ngeen confirmer ko comme d'habitude après ngeen euh, mën a connecté wu. soo leen connecté wu ba pare mu ngi nii euh, page d'accueil baa ngi nii Binance acheter des cryptos trader NFT je sais pas quoi je sais pas quoi mi ngi nii c'est très très très intuitif. comme que créé ngeen ko ba pare loolu di ñëkk a def fii ngeen dem si profil dem tableau de bord soo leen demee tableau de bord. soo leen ñëwee tableau de bord gis man fii nii valeur estimée am naa fi 28 euros te 28 euros bi si portefeuille spot bi kese la nekk te samay am naa yeneen portefeuille yi nga xamante ne ñu ngi fay par exemple sama portefeuille earn foofu noonu foofu la revenu euh, passif di nekk vous voyez un léegi da ngeen ñëw fii si identification soo soo ko créé compte bi automatiquement fii ngeen di ñëw sinon loolu leen mën a dugal xaalis soo ñëwee ci vérification personnelle gis nga fii nii fii nii Euh, à la place de terminer bi commencer maintenant moo fi nekk comme fii nii soo leen ko bësee di ngeen indi euh, information personnelle ngeen di bind pièce euh, d'identité délivrée mooy seen pièce seen carte d'identité recto ak verso ak reconnaissance faciale bi moo tax ma leen di conseiller kii bi ñu ngi koy waxeeti sax vérification bi ngeen defee ko par téléphone man ngeen defee lépp inscription bi ak vérification par téléphone mais genre inscription bi nii nii def ko ci ordinateur mu gën a intuitif après euh, kii bi ñu koy waxee di sax hmm, vérification bi ngeen def ko par euh, téléphone mais c'est la même chose soo leen demee par téléphone tamit code bi ngeen ni binaat rek mu jeex je pense que après naa leen wan euh, bon inscription bi dama leen ko wan par téléphone ndax inscription bi c'est comme fii rek la vite fait la après dama leen wan noo leen defee ba kii rek. ba def seen vérification personnelle par téléphone soo leen ko xasee ba def terminé jeex na vous avez fait le gros du boulot voilà gis ngeen après avoir fait tout ça ainsi bi nii fii la bagage yi di commencé fi fii nii dañuy ñëw si acheter des crypto-monnaies soo leen ñëwee fii gis ngeen mën ngeen def dépôt euro via SEPA Eurocard acheter des cryptos avec une carte. Euh, début voilà trading P2 PE xamal la nag lan léegi ñun acheter fii nañu dem acheter di crypto avec une carte fii moom mosuma fee jëndee kii nag mais je pense que ni nga de acheter une crypto avec une carte léegi euh, fii nii par exemple ndax fii nii minimum quinze euh, euros la minimum quinze nga mën a def dépôt quinze euros. suñu xool ins bi ni quinze euros en franc CFA gis ngeen c'est presque quasiment rien nga jël benn dix mille franc bu dëgg dugal ko ci. xam nga dèjà loolu dix bii nii yow mi di seetaan vidéo bi gëm naa ne moom yor nga ko ndax ndoole woon noonu léegi nga <laughs> nga def quinze euros di ngay am lii nii ci bitcoin mais par exemple ñun jënduñu bitcoin. ñun ins bi ni USDT la ñuy jënd benn stable coin na mooy li ma la doon wax sànq mooy euh, valeur bi nga xamante ne du wàcc du yéeg moo gën a wóor jënd ko moo gën a wóor mën ko jënd bàyyi ko fa ay années soo ñëwee nii nga koy bàyyaat léegi USDT la ñuy jënd suñ ko jëndee léegi après à base de USDT nag mën nañu jël USDT di jënd yeneen crypto wala jël USDT di investir si yeneen business model loolu nag la ñuy def léegi gis ngeen recevoir dépenser achat récurrent jarul ko ñu si continuer gis ngeen man sama carte dama ko kii automatiquement mi ngi nii recevoir quinze euros. mi ngi nii seize seize virgule cinq USDT maanaam quinze euros SB équivaut à seize virgule cinquante cinq dollars soo leen si continuer ndax instant ni sama carte mi ngi nii dama ko enregistré ba pare continuer gis ngeen sama CVV lañ may laaj par exemple du par exemple sama CVV la bind bind entrée mais <laughs> dama koy nëbb ndax duma leen wan sama CVV dofuma <laughs> gis ngeen confirmer l'offre mi ngi nii recevoir tant tant tant mais man je vais pas confirmer je vais mettre précédent ngeen ba soo leen bësee confirmer xaalis bi ñëw automatiquement léegi nañ viré si téléphone ma wan leen nu muy demee. hey guys de retour sur mon call jarul ma leen di wan nu ñuy. installé Binance ndax war ngeen ko xam da ngeen di dem App Store ngeen installé Binance <laughs> wala ngeen dem Play Store ngeen bind Binance ngeen euh, voilà installé ko pour création de compte bi création classique la mooy loolu adresse email ngeen bind ko mot de passe ngeen bind ko euh, fi ñu bind ID de parrainage ngeen bind sama ID de parrainage bi jeex na tàkk pour ñu mën a def communauté bi mën a créer chaîne Telegram bi mën a voilà. léegi comme que def ngeen loolu ba pare ñu ñëw ci Binance pour vérification personnelle je pense que fii nii. doo man def dara sans que tant que dafa vérification personnelle ndax man def naa ko ba pare bi ma ko mën a andil mais yéen soo leen ko defee automatiquement je pense que euh, loolu ngeen war a def soo leen ko defee photo adresse euh, photo carte bi recto ak verso euh, reconnaissance faciale su ma juumlu mais loolu foog naa option la après ça jeex na pour ñi nga xamante ne dañoo ñëw tombé si lii nii ci Binance Pro bii nii. mais je pense que yéen automatiquement ci Binance Lative ngeen tombé Binance nga xamante ne pour ñi nga xamante ne dañ ko maîtriser ba pare comme sama genre yi nii maîtriser euh, trading bi ak yooyu noonu consort mais pour ñi nga xamante ne maîtriser ko ci bonhomme bi ci kaw ngeen di dem ngeen activer Binance Lite Binance Lite ñëw na leen la ñu ñëw def jënd crypto monnaie soo leen jënd crypto monnaie dama leen conseil à chaque fois ngeen jënd USDT mi ngi nii ndax stable coin bi nga xamante ne dafa indexé wu avec le dollar la léegi gis ngeen USDT 0 acheté ngeen jël ñaata 15 USDT mooy euh, minimum bi mooy maanaam ngeen jël 10 000 bu dëgër ngeen dugal ko ci ngeen bës acheté gis ngeen soo defee acheté man dafa détecté automatiquement sama carte ndax man dama tàmbali jën fii nii mais comme que yéen am ngeen carte mais détecté gu ko par exemple fii nii changer de carte damay dem si payer avec une nouvelle carte su ma demee si confirmer lii la may andil comme yéen prénom nom turu carte bi date d'expression bi CVV bi après nga suivant su ma juumul soo bësee suivant bi après kii def facturation bi la lay andil nga validé mu jeex mais comme que man j'ai déjà ma carte damay dem ci directement carte Mastercard bi dem ci actualiser le prix confirmer jeex na ma def sama code CVV dawul confirmé gis ngeen mu ngi ni validé ngeen bés seen xaalis ñëw automatiquement seen UGT ñëw UGT yi su fii nga koy fii nga koy gisee si gis ngeen sol au total 33 virgule 30 dollars UGT yi fi la nekk man fi UGT 0 fi nekk te gis ngeen fii ni par exemple 33 dollars moo fi nekk 33 dollars ngeen gis léegi xaaral ma dellu sama Binance normal mooy euh, pro bi ndax man ma la fa tàmb ngeen dem ci portefeuille que aperçu fait 33 dollars la fii mi ngi nii si 55 dollars foofu laa dugal euh, euh, kii bi crypto-monnaie yi ma jënd pour bàyyi ko foofu noonu à long terme les crypto yi nga yi nga xamante ne daf may indil ay intérêt cumulé mi ngi nii sànq rek laa defoon réclamation mooy da ngay dem si Binance Earn mooy fii nii gis ngeen. BNB intérêt cumulé yi mi ngi ñëw USDT intérêt cumulé yi mi ngi ñëw gis ngeen 21 pour cent par an 10 pour cent intérêt cumulé Sandbox lii nii euh, pool de liquidité la ETH USDT mi ngi ñëw Mana Bitcoin mu ngi ñëw Alpine Bitcoin Alpine mooy euh, crypto monnaie bu mu gën a yàggul crypto monnaie boobu noonu pour kii bi la pour waa formule one la waa formule 1 léegi loolu noonu côté boobu noonu nice ins bi on a déjà acheté le truc et tout ça et cetera yéen soo leen jënee directement kii bi USDT c' est pas forcé ngeen def ay euh, investissement bitcoin et tout ça et mais soo leen bëggee def commencé investissement bëgg jënd bitcoin mën ngeen dël USDT léegi soo leen euh, soxlee bitcoin par exemple. bon gars yi dama defoon pause mooy loolu bon par exemple euh, voilà su nekkoon yéen ngeen bëgg investir si bitcoin si bitcoin par exemple bitcoin bii nii nii nii. da ngeen dem ci bitcoin fekk ne yéen ngeen amoon ay USDT la ngeen di di ngeen dem si bitcoin ngeen dem ci échange soo demee si échange ngeen choisir lan euh, ñaata bitcoin yi ngeen bëgg a jënd par exemple soo bëggee quinze acheter ah non la bës wala échange acheter la bës échanger fan la woon encore convertir la convertir ngeen di dem soo demee ci convertir da di wax. de ñaata a ñaata ñun nag USDT lañu ñu am dañuy dem si USD USDT euh, a bitcoin léegi USDT yi sànq ñaata loon suñu jëloon quinze vingt ins bii ni vingt la ñu wax jël vingt de vingt à max par man fii zéro laa am du ma mën a convertir mais yéen su leen defoon max bi quinze je sais pas di ngeen di ab bitcoin di ngeen di gis léegi ngeen bës effectuer de la conversation aperçu de la conversion ngeen convertir mu indi leen ay bitcoin ngeen stake ko foofu bàyyi ko fa mais pour yeneen investissement yi di ñëw da ngeen di dugal xaalis directement si USDT ngeen bàyyi ko fa léegi nag yeneen investissement yeneen business yi mooy business bi mu leen di ñëw andil mooy bi nga xamante ni daf lay andil par mois ay rendement de 3 pour cent des fois de 4 pour cent par mois, non, Astafirola, par jour, ay un rendement de cent par mois, à un rendement de 35%, à un rendement de pour cent un rendement de 20%. mooy maanaam ngay dugal xaalis mu lay andil par mois ay revenu normalement di la fay ay revenu passif loolu noonu dinañ ci ñëw après mais pour loolu noonu pour ngeen mën ko def loolu foog ngeen am ay USDT donc USDT je vous conseille ngeen bàyyi ko fa bu leen ko éparpiller mais pour ñi nga xamante ne dañoo bëgg investir ci ay crypto dinaa créer vidéo spéciale wan leen yan crypto ngeen mën a investir crypto à haut rendement en ce ndax gis ngeen Terra naa bii nii day fay Solana bi day fay Ethereum bi Bitcoin BNB bi mi ngi ci kaw yoon naa ko euro bi jarul laal Cosmos Alpine bi mi ngi nii mooy pour Formule 1 bi m bi mu ngi nii Avalanche surtout Avalanche bi day fay Cardano bi Shiba Inu bi Shiba Inu moo rendre millionnaire SBI gars matic bi tamit bii day fay dama ñëw jënd sax bii nii est que du ma ko jënd léegi benn yoon hmm, non coolul non naa bàyyi ba sa matic bi dama koy jënd ak lan la bëggoon ñu waxtaan fii nii je pense que j'ai fait le tour j'ai tout expliqué j'ai tout dit hmm, à Shiba Inu xaar moo wan Shiba Inu lan la def gis ngeen gis ngeen Shiba Inu lu mu def Millionnaire par accident avec Shiba Inu, il prend sa retraite à 35 ans, affaire de 8000 dollars à plus d'un million de dollars avec les Shiba Inu. Comme le rapporte un article de journal, euh, du journal Fortune, un certain Rob est plus qu'heureux d'avoir misé son argent dans une crypto de type Memcoin, c'est-à-dire basée quasi uniquement sur le succès d'un même Internet. Cette image drôle, euh, souvent détournée, parfois accompagnée d'un petit texte, Notre ami Rob, un directeur d'entrepôt de supermarché âgé de 35 ans, a en effet investi pareil 8000 dollars sur un jeton chip alors que la crypto-monnaie ne valait que 0,0000001 dollars l'unité. Et coup de chance, invraisemblable, son numéro est sorti à la roulette du dessin, madame, à la roulette russe, mon gars. Lors du précédent sommet sur le marché des cryptos en mai 2021, Rob a vendu une partie de ses chips à 0,00035 dollars, réalisant un joli, euh, réalisant un joli plus 35 000 boy. Il a ainsi empoché la coquette somme de 500 000 dollars sur son compte bancaire. Vous imaginez le truc Retraite anticipée, l'âme, le gis ngeen même si un coup de xaw ma lan lan lan brièvement pati patal virtude avant la xaw ma lan lan uno des millions one million la laal break gan gi pour dire nekk si millionnaire lu yomb la mais foog nga am chance mais su nekkee amul chance foog nga am ay stratégie lu leer te man stratégie instant yi nii mi ngi sama loxo donc abonnez-vous leen cloche de notification yi loolu laa waroon wax au début mais bon abonnez ngeen activer ngeen activer cloche notification pour vidéo yi gën a mën a bëri sama gars yi def ngeen lépp.